ba tey ci xëtam bu njëkk ci leeral point net demande de LP à la chambre d'accusation trois rapports confirment l'état de santé dégradant de Simon li nga xamante rek daal mooy wér-gu-yaramu Simon dafa daal di mel ni rek daal lu xaw a garaaw moo tax rek daal daal dinañu laaj li nga xamante ne mooy LP ci chambre d'accusation googa ñetti rapport rek daal ñoo daal di xamle ni ni mel nee nañ rek ki nga xamante ne mooy euh, Simon Kouka moom nag daal dafa nekk ci ab situation bu critique gannaaw rek daal ay avocat am bi laajee li nga xamante ne mooy liberté provisoire rek ngir rek daal wér-gu-yaramam mu mën koo daal di toppatoo bu ñu sukkandikoo rek ci écho euh, ñoom nag daal li ñu daal di xamle mooy ñaari rapport yi nga xamante ne médecin personnel yi daal dinañ ko def ak troisième rapport bi nga xamante ne médecin prévision bi itamit daal dina ko def lépp daal dafay wane rek daal état bi nga xamante ne wér-gu-yaramu euh, Simon daal ca la nekk ñu mën a xamle rek ay avocat am itamit ki nga xamante ne mooy euh, maître Moussa Sarr moom nag daal dafa ne dafa daal gis ki nga xamante ne mooy Simon ci suba gi maanaam rek daal mu ngi wax naka démb rek bi mu ko daal di gisee rek état am daal dafa daal di eh, garaaw bu baax a baax loolu daal daal di xamle waaye nag li nga xamante ne mooy eh, mbirub Simon ak ki nga xamante ne mooy eh, kilifa ñoom naka daal ñu ngi ci chambre d'accusation de cour d'appel de Dakar gi ngir xool ñoom seen i mbiraan naka lay demee ci fàttali rek ñaar ñooñu ñaari rappeurs yooyu dañ leen daal di rek daal jàpp ci ab escroquerie de visa waaye nag ak trafic de migrants loolu daal lañ leen daal di xamle bu ñu sukkandikoo ci yéen kaay gi